mondial bi jàllee dañuy tax fi nga mooy grand combat bi mais beneen adversaire bi ñëwul Nguel Dione moo fi teew Nguel ñu ngi lay nuyu. bu wér di siyaar képp ku fi teew ak site internet yi. Mhm. gaa yëpp maa ngi leen di siyaar waaw di nuyuwaat waa Kër Seen Cheikh Sall boo xayaat di leen nuyuwaat bu baax a baax di nuyuwaat bu baax waaw di leen siyaaraat ma jóge faaru Balla Gaye leen siyaar ba wér ñu gis ne Pape ñëwul muy sa adversaire ngeen war a bëri grand combat euh, Fatou Balla Gaye yaakaar naa ne bu leen taxawalee taxawal na lu am doole ñu gis tey sa adversaire ñëwul. waaw man loolu moom xaw dara parce que xaw ma lu ko téye mais yàlla na ko jàmm téye incha allah ba jour bi ñëw ñu jaarale fi jaarale ay morom incha allah waaw coono jeex. lan ngay xaar pour mu ñëwee jour la li may xaar ci moom moom du dara waaw pour man moom mooy xaar ci man lu rëy te incha rabbi bu ñëwee fii na daan neexe yàlla waaw. lim ñëwul moo tax wala say waxu bopp la. non sans lim ñëwul sax mais ñun moom ku ñu xam xam nañ ñun mooy loolu. yàlla baax na en tout cas yàlla na ko jàmm suñu borom téye. ngay ngay bëree grand combat jour le 24 incha allahu rabbi Fatou Balla yaakaar naa moom jigéen la euh, bëgg na waaw bëgg na mobilisation bu am doole na lan ngeen ku ñu xam moom xam ne nekk suñu ginnaaw yaatu na mhm. te jarul wax ju bari quoi mhm. ku ci nekk li nga xamante nii moom nga indi fii mhm. waaw na nekk ci yow rek waaw te tamit nga xam sa bopp quoi pour man incha allahu rabbi bu ñëwee fii ku ci teg sa bët balaa ma fay jigawaat di nga wax ci ma mais xëy yàlla. daal maa ngi waaj bu baax a baax ak samay mbokk. Mm-hmm. waaw nan ñëw rek ñëw ak ni ma daan ñëwee. Mm-hmm. incha allahu rabi jaarale ko fi ma doon jaarale ak morom incha allah. Mm-hmm. waaw est-ce que ñu bu taxawee dëggal boppam duñu yàgg. bu neexee yàlla bu bu taxawee dëggal boppam duñu yàgg fi ma jaarale ay morom laa ko jaarale. kii maa ngi moom amaana duñ ay adversaire sax mais xam nga rek moom moo ci topp jox ma ngal jox ma ngal ba komba bi taxaw mais maa moom yàlla xam na ne ku xam sama parcours xam ne maa moom duñu ay adversaire wallaahi ku daan ku bëreeg Rambo fii mhm. waaye di loo ko mhm. bëreeg Rouge Danger waaye di loo ko xam nga ne Pambaay du sa adversaire mais adversaire bokkul ah mais yàlla yàlla baax na daal nañ bàyyi lépp ci loxo yàlla ba jour ba daal yàlla suñu borom bañ kaa tënk comme tey jii ni bañ ñëwee mhm. yàlla suñu borom bañ koo tënk ba mu ñëw fii incha allah bu ñëwee daanu bu neexee yàlla waaw dara amul amul dara lu ma koy wax. waaw di ko ñaanal yàlla suñu borom jàmm rek. waaw ba jour làmb ja mu ñëw incha allah daanu. daanu bu soobee yàlla di daanu. Hmm. day da ah, ñàkk ñëw koy la ñuy xalaat mais ñëw moom ko defee daa bu soow yàlla waaw. moo wax loolu muy combat Fatou Balla Gaye grand combat la war a bëre moom ak Pambaay euh, le 14 décembre incha ñu taxaw ki nga xamante ne mooy promotrice bi muy Fatou Balla Gaye yaakaar naa ni Fatou Balla Gaye xale la révélation la te wax dëgg yàlla li amaate di soxla mi ngi leen koy jox Fatou nga taxawal combat bu mag Nguel Dione ak Pambaay muy grand combat jour le 14 décembre ba taxawal. waaw comme dañuy a a ci yàlla bu baax a baax julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur fedeli suñu cofeel ci sëriñ Babacar si di wax ne ren dañu ñëw ak takkusaanu banlieue bu ñu waxee takkusaanu banlieue kon xam nañu banlieue bi war nañoo mën a wuy si moo tax ñu jël ay mbëru banlieue bi boole leen ñi ñu boole tamit muy ngal kokki ak pambaay am nañ ci moom yaakaar mu dem ci tamit bandi jamus euh, petit baay faal tamit am nañ ci moom yaakaar muy dix combat yi ñu monte yëpp ku ci nekk rek am na loo loo def ci làmb bañ war mën laa tëggal euh, combat ànd ci ak sama staff ku xam na ni jigéen mënul mais ma ànd ak ay góor yoo xamante ni boobu ba léegi nag sonn ñu taayiwuñu ñi ngi jàpp bu baax a baax liggéey ak jigéen yomb di nga ko woo muy nelaw di ko woo doo ko jot mais découragé wuñ benn yoon ñoom moom fu ma toll dama leen di sant di leen gërëm tax maa leen téye ci naaj bi nii ñu bàyyi seen liggéey ñëw laay Dakar séeri Kumba Ñang ah di woo euh, sama géwal bi <laughs> sama géwal bi ah kaana booy ah boo limee doom matale mais kontaan naa daal ci ñoom macha allah di waaj la 14 incha allah. Fatou nga nekk jigéen nekk ci milieu làmb ndax ku ne milieu làmb xam ne jigéen bu ci bokkee rek day daal di métti ndax nga ne ba taxawal combat yi. taxawal combat yi pourtant trop parce que xam nga milieu bi milieu góor la mais Fatou Balla Gaye na ci biir góor ñi. Mhm. xëy na mi ngi soog a ñëw arène mais yàgg naa ci mbappa di nekk ci biir góor ñi moo tax pour ma pour ma taxawal ay combat du métti. Mhm. parce que dina am ay góor yoo xamante ne dina ànd ak ñoom ñu pare pour pour liggéey ak man mhm. du métti trop. grand combat bi nga koy taxawal nu mu ma koy taxawal euh, man ak <laughs> laay Dakar la Kaana booy ah. ñu indi leen arène nationale ñu gisante ñu taxawal ko. Mhm. waaw ñu taxawal ko yomboon méttiwul man daal wax dëgg neex samay mbir moom ñoom ñu ngi ciy jàpp méttiwul. Mm-hmm. Fatou ginnaaw bi nga taxawalee xale yi ngay xaar ci xale ndax ku ne làmb li mobilisation bu est-ce que Fatou Balla Gaye gëm ne xale yi tax dañ ko indi doole bi. waaw am naa ci ñoom yaakaar nag euh, dix combats yi nga xam ni taxawal nañ ko mm-hmm. maag sama staff yu nekk vingt lutteurs mm-hmm. am nañ ci ñoom. confiance te xam naa tamit dinañ jàppale ki nga xam ni mooy promotrice bi xam ni jigéen la ñu def mobilisation bañ a def waxu mbër li topp sama ginnaaw li topp sama ginnaaw su suur baa mu mu teen kaw arène nationale du gis kenn mm. du ma la wax daal du ma la mm-hmm. naa fula boobu du ma la moom mm-hmm. moom du ma la tëggaat encore une fois du ma la tëggaat mm-hmm. mais bu bu fekkente ne bii man li ma defante waxanteeg ñoom respecté naa ko ñoom dim li ñu waxanteeg man ñu respecté mais tëgg mbal nga ñëw seen man su ma ñëwee tribune bi laa ko a xool parce que sama staff ñoom matale nañ yëpp mm-hmm. waaw ñeenne mooy sama géwal bi mm-hmm. pour ma xam waxtur bi pour <laughs> mooy sama géwal bi moom daa sonn ci affaire waaw su ma xoolee kaw tribune bi daal dinaa xam mbër bi indi ak bi indiwul. mu mel ne kon Fatou mobilisation ngay xaar ci xale yi. waaw mhm. parce que mobilisation day taaral bis surtout bis boo xamante ni bi jigéen moo ko organisé du góor. Mhm, mhm, jigéen moo ko organisé. bàyyi ay nelawam bàyyi ay doomam bàyyi fameem bàyyi ñëpp topp ci làmb kon yaakaar naa heure bii nag làmb war na mën Fatou Balla Gaye gis boppam ci làmb. bien vrai que nag séntu wu ñu gañaa gañaa trop ci làmb parce que bëgg-bëgg moo ñu bàyyi ci làmb ba léegi mais na bis bi réussir taaru. parce que bu ñu leen tëgg tamit tëgg ñu leen pour intérêt cent pour cent mbër bi na ma na ma versé mbër bi na ma defal lii mbër bi na ma defal lii damay waxaat comme li ma waxoon dagguma sama licence pour dagg toppante ak benn mbër dagguma sama licence pour di dem di fayeeku benn mbër mais nag tey jii ku nekk bu la joxee àq war nga ko delloo àq bi nga xamante ne bii jox la ko jox na la ko en tant que jigéen mais daal mën na jàpp ne Fatou Balla Gaye la 14 incha allahu bi bëgg na daal stade bi taaru xale yi bëri bëri gu nekk mobiliser andil ko waaw bëgg naa stade bi taaru mhm. xale yi bëri mobiliser ku ci nekk boo jógee sa koñ ña la mën a topp topp la mhm. incha allah ñu ñëw daje fii arène nationale mhm. mu euh, mu nekk mercredi yaakaar naa waa CNG ñoo ko moomoon muy mercredi arène mais maa leen ko àbb ah, buñ ko soxla soxlawaatee rek ma delloo leen ko micro arène ku ne dégg na ko CNG moo ko moom mhm. mais buñ ko soxlawaatee ma delloo leen ko loolu mooy innover ci làmb parce que làmb waruñu ni boo amul weekend rek doo tëgg comme man jigéen laa mhm. te ñoom ay góor la ñemewuñ tëgg jour boo xamante ne bii du weekend man jigéen bi man Fatou Balla Gueye maay tëgg jour boo xam ne du weekend mhm. yàlla defal ñu ci ndam ak sutura ñu am ci réussite bii mooy sama troisième sortie daa am naa ñaar mhm. ren bii mooy sama troisième sortie te takk saanu baanee day continuer nekkul lu ñuy tëgg tey bàyyi bëgg nañ chaque weer ñu jël si benn mercredi di taxawal takk saanu baanee mhm. waaw ñu gis nga def dix combat lu la lamb noonu la lamb moom lu mu lamb bi lu mu lu mu mën si demee moom na nga nomee dix combat mhm. mooy taaral sa bis mais lamb boo ko tegee arène nationale bi defoo dix combat bis bi mën na bañ a taaru. Mm-hmm. ñu tàggoo rek comme temps waa di waxaat mbëri rek. Mm-hmm. dañu nekk ay adversaire pour le 14 bi mm-hmm. bu jeexee jeex na ñu rafetal lépp xam ni encore une fois may waxaat ne rek jigéen moo organisé nañ ko jàppale comme estafam ni ñu koy jàppale du ñu nelaw fu ñu xam loo xamante ne bi dina defar bis bi ñoom ñu dem fa ñu mm-hmm. jàppalee noonu Fatou Balla Gaye mm-hmm. di woo nag ki nga xamante ne bi moom laa tuddee sama bopp mm-hmm. ñu ma koy woowee depuis Mbapat ba léegi Omar Sakho di ko ñaanal nag combat bi mu jëm mu am ci ndam ci barke yonent bi ja daan boo ñaa jël bu set wecc du ma ko nëbb moom laa faral di ko ñaanal ndam jël bu set wecc làmbam ji di ñëw incha allah mais nag na gesuwaat ki nga xamante ne bii jigéen la. dee ko boppam. te yàgg koo topp te yàgg naa koo topp. Mhm. mu ñëw di jàpp ci samay bis ma mën a am sponsor di gërëmaat sama staff laay Dakar Séeri Kumba Ñang <laughs> ak Kaana Boy. ñenn ñi nga xam ne ñoom lay àndal depuis boobu ba léegi ñu ciy jàpp Omar Saliou sama rakk ji daa amoon journée mais moom sama staff la bokk mais dafa engagé woon benn journée te ku nekk xam na ne làmb daa metti bu lëjee rek yow mi engagé journée jàmm mun nga am problème comprendre nañ ko loolu mais moom mi ngi ci biir staff Fatou Balla Gaye tant que neewul Fatou Balla Gaye daal bàyyi ma man pël bu rafet du ma ko bàyyi <laughs> waaw ah, euh, lamb Sénégal diaspora waa di di di kontaan ci <laughs> su ko defee su ma limee si di mën naa kii mais Sénégal diaspora moom ñi action spéciale ñoom su ma léegi ñu ngi fi taxaw ngir benn jigéen faatu Balla Gaye yeneen sit yi su ma tuddee tur bi mën na bañ a normal mais kontaan naa ci képp koo xamante ne bi ñëw nga jàpp ci lii ndax lii boo ko defee promotion euh, promotrice bi la dina tax ñi ko xamul woon xam ko mhm. ñi nga xam ne yëguñu woon journée bi dinañ ko yëg kon ñoom dama leen di sant di leen gërëm bu baax a baax mhm. di leen woo tamit la 14 ju incha allah mhm. mercredi ñu ñëw xam ni góor ñi ñemewuñu tëgg jour bu dul weekend Fatou Balla Gaye jigéen moo osé tëgg jour boo xam ne du weekend maa ngi leen di tijjil porte yi pour ñoom ñu mën ko ñeme li tax ñu mën ko ñeme mooy mbëri ñooy wane li tax ñu leen di mën di tëgg jour bu dul weekend parce que leaders yi bëri nañ te promoteurs yi bëriwuñ promotrices yi bëriwuñ sandaa ñëpp bëggee la bu baax a baax. bu bees bu tudd top 3 mbëri yaakaar naa ne nañ jéem a fexe.